mbokk internet yi ñu ngi leen di euh, nuyu di am kontaan te jàkkaarloo ak yéen waaye di am kontaan tamit jàkkaarloo ak euh, Serigne Mara ñas euh, mu Serigne Saliou tey moom lañ fas yéene dalal suñu waxtaan nga xam moom lañu amal ci suñu émission xaalima bu ñaw ñu fas yéene amal moom waxtaan bu am solo Serigne Mara Niass mu Serigne Saliou moom lañu fas yéene àndal tey ma bamtu ko dama koy bàyyi mu daal di nuyu ñu soo a dugg ci laaj ba tontu bi. yaaram jërëjëf ñu ngi nuyu àdduna yëpp di jël nuyoo beeg siyaar bi. di ci jiital seex Mouhamadul Muntaxa Bachiru ayadallahu wa nashrahu di suñu buntu Serigne Cheikh Saliou duñ ko fàtte mukk ak njabootuk sëriñ Saliou gi yëpp di nuyu waa Sono Sénégal yëpp ak waa Sonogal 24 di nuyu àdduna yëpp bawuñu fenn ëttu kër diine yëpp ñu ngi lay fay bu baax yow mi ñu jox kàddu gi yaaram jërëjëf. Euh, jërëjëf euh, fi ñuy doore rek mooy euh, Serigne Saliou moom li ñu boole moom bari na. ndax ñun uh, ay ndaw lañ yoo xam ne man bi may am juróom benn at lañ ma ko jox xel koom daaru salaam diis sëñ Cheikh Diaw ndeysaan ndem si yàlla yàlla na ko suñu boroom gën a dolli ay tawféex ak yërmande moo nekkoon sama jëwrin waaye maa ngi yeggalee fii daaray xàbbaan di kër sëriñ Saliou ku nekk boori mbuur yaakaar naa ne ku ko xamul dégg ko nga xam ne Mara Niass mu Serigne Saliou ca daara ja lañ ma ko daan woowe am na ñu daan jóge ci gox bi àdduna fu bari daan ñu fekk foofu ñu leen daan bindal di leen jox di leen ñaanal te booba ñu ngi ci keppaaruk Serigne Saliou Mara mu Serigne Saliou foofu la jóge ba noppi Serigne Saliou li ñu boole mu may ñu nag ba noppi dimbali ñu surtout lii ñuy def di ko yëngu ci ak ñaan yàlla ak it di paj surtout wàllum faj ak wàllum ñaan euh, dañ koo boole bu ma nee faj nag ñun ci wàllum yax la faj nga xam ne dañoo jafe-jafe tànk yu méttee xeet googu moom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy ñu ngi ciy dimbali askan wi te yàlla rek tax waaye bu fekkee ñaan yàlla suñu borom moo nekk suñu liggéey ba noppi di jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi Mara Niass mu Serigne Saliou daal lii moo ko taqaleeg Serigne Saliou bi mu am juróom benn at daf ko topp nag ba gisatu ko doomam Serigne Cheikh moo ko yeewi Serigne Cheikh saaliw moo tax maa ngi fii ci kanamu jumaam ji ci ndigalam ba tax na ñu ngi siyaare ndongo tarbiya yëpp di siyaare waa kër Serigne Saliou yëpp

mécaniciens yu bari euh, ñëpp daal mas masàllaa noonu la bare àdduna nag moo demee noonu lasraar it noonu la bare ndax kenn ku nekk ak sa façon ak ni la suñ borom maye waaye bu fekkee wàllum lasraar nga xam ne ci wàllum kurus suñ borom am na lum ñu ci dénk loo xam ne ñi ngi faj aajoy jaam ñi képp ku sa aajo nërta faju moom duñ sax déggante bay jëflante loolu moom ñaan nañ ko Serigne Saliou démb tey doog a ñëw boo gisee lasraar nag dafa bëri façon ñun dana ñaan yàlla ci wàllum kurus muy wàllum xalwatu dana tëjul ay nit ay kilifa jombul ñu ñuy seetaan ndax liggéeyu sutura la kenn du wax maa defal diw ak maa faj diw ak maa ñaanal diw kenn du ko wax lasaraar nag dafa bari ay buntu dafa bari tamit ay secret bari nuñ koy defee nga baal ma sa jur damay faral di ko wax ci samay waxtaan sa waajur daan na uh, te turu yàlla di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey ay at mënu ci dara yow doom ji nga ñëw te te kurus rek yëf ya toj koo ñaanal mu nangu ñu naan diw nangam ay atam sax bariwul fekk fekk lu ci moom lu ñu liggéeyoon démb la lasraar nag léeg-léeg dafay dafay fa faral di doon taalal nawet day guus côté bu nekk nga koy uppee mu tëw a tàkk waaye yow mi ñaan ak ki ngay ñaanal fii xamoo mooy kan doo ko mën a ñaanal waxuma laa ci lasraar ak ay xalwatoog ay seet ndax nit ñeent la mooy maa iyu naari yu hawaa iyu turaabi yu nit ki nga xam ne dafa ñëw ngir nga las nga nga defal ko masalan nga baal ma nga ñaanal ko fii xamoo ko mënoo koo ñaanal lasaraar nag léegi dafa bëri euh, ay façon damay nga baal ma duma dingat kenn dëgg la ñëpp a baax ñëpp a mën a ñaan waaye kenn ku ne da ngaa amub sëriñ te kenn du fi nekk rek di ñaanal ñëpp mënta ne kenn ku ne suñ borom dafa am num lay tëggee am ñum la booleel ba tax na man bu ma ko xoolee ba xam ne war naa laa mën a ñaanal incha allahu rabbi bu ma nee la waaw yëfee ku yàlla bind mënoo fexe ba du saafaraw ñu ngi ci loolu la ñuy ñaane ci wàllum kurus dañuy ñaanit ci wàllum suuf <laughs> loolu ñu ñuy seetaan <laughs> waaw ci xam nga suuf am na ñu tëb ñoo xam ne dañ ciy seet man damay seet ci suuf waaye damay ñaan ci suuf am na aajo joo xam ne boo boo ma ko indilee fii ak tibb ma suuf def ci li ma ciy def dox la sa aajo du faju ci suuf rek nga koy defee bu fekkee nga xam ne wàlli biti réew ndaysaan nga baal ma waroon naa leen a nuyu sax ak wàllum kaw gi waa nguy eh, sama dëkk boobu booru Kaffrine nguy maa ngi leen di siyaare bu baax ñoom imaam kilifa ya fa nekk waroon naa leen cee jiital bu fekkee ne dañoo génn ku mel ni nga baal ma nekkul ci dëkk bi wala bokku leen gox bu ngeen nekk da nga ko ñaanal man nga koo jox lu baax waaye boo xamul nañ koy yabee ak nañ ko koy yóbbulee li nga koy jox day toj bu ko defee mun a ñaan lu naa fu ne sëriñ si defal nañ ma lu ne waaye man gisuma dara nit dina mën a ñaan lool ñaan secret la yàgg nga koo dégg waaye secret bi mooy lan loolu mooy mbirum ñaan ñaan dafa nekk loo xam ne dafa làqatu xam-xam soriwul dafa làqu waaye nag kenn mënul dëkk ci ñetti sëriñ ba ñaari sëriñ ñaanal la te ñaan gi nanguwul yow xoolaatal sa bopp waaye ñaan nag dafa am yoon ba tax na daal képp ki nga xam ne yàlla boole nañu dañuy jàppale jaam ñi ngir sëriñ Saliou ñun dañ fee ñëw ngir yërmande bu dee leneen ak leneen sëriñ bi jiitu na ci ñun ndax wax dëgg yàlla jooytuwuñ dara waaye bu fekkee ne nit sañ naa bañ a xam dara génn di wax ak jaam ñi ñi yàlla dénk nañ génn moom laa defoon sorti boobu ma ne leen tekki leen jaaro yi jombul di nga ci ñëw ci kanam lii daal mooy sabab bi mbir mi bu ko defee nga gën a xuus ci waxtaan wi ndax temps bi guddul waaw jaaro est-ce que xam nga ne dañ koy seet jaaro ah. dañ koy seet ni ñuy seetee ab sëyeku fas fas ya léegi mooy oto ak kër jaaro dañ koy seet ci fukki burgu yu ak ñaar am na ku ma dégg ñu ne ma mooy borom jaaro yi yàlla di mi dara tawul ñu dox bañ daje ñu toog ñuy waxtaane jaaro ma ne ko jaaro xam ne dañ koy seet barki Serigne Saliou mu ne ma seet ma ne ko waaw waaw ma ne ko ma ko yow nooy liggéeyee jaaro mu ne ma nangam ak nangam ma ne ko juum nga jaaro dañ koy liggéey ci sa turu waajur wu jigéen wala ñu seet ko ci fukki burgu yu ak ñaar ndax nit ku nekk koo gis muy dox am na droit takk juróom-ñaari jaaro set waxuma nag set yëpp lay takkandoo waaye ci biir set yooyu daf ci am ay jaaro yu mu a takk jaaro bu sone bi ci wàllum suukar lay dox léeg-léeg nga gis nit ku fayruus bi ci jigéen ju mënta am doom ju taxaw ci lañ koy liggéeyee jaaro dafa am ay tur te per bi rek day nësaxal nit am na kër yu muy nekk yoo xam ne da koy wàcce da koy daaneel am xadidul xamar am xaynul siidu am siidul xadiidu maanaam bu ma la ko doon bu ma la ko doon limal dafa bëri waaye nag dafa xaw a sensible nit ki bu mu def rek ñuy jaaro mu mu romb jaaro mu rafet rek mu jënd takk ci loxoom wala diw na ko nangam nañ ko seet te nañ la wax yow yaay kan nit koo gis muy dox war naa xam mooy kan waaye fi mu ne bari na kilifa yoo xam ne boo leen bettoon na la yaay kan duñ la wax seen bopp buñ doon génn sarax xamuñu seen sarax mooy lan te bañ bañ dalee dox ba tey ñi ngi ñaanlu ku lay ñaanal benn sëriñ doy na demal nga ne ko man wax ma sama bopp may kan bu dee sëriñ dina ne la sa mbir lii la yaay diw lii nga war di def lii nga war di saraxe bu boobaa daanaka jërul ñaanlu sëriñ bi nañ waxante dëgg jamono ji nit ñi sonn nañ li ma gën a metti mooy bu ma euh, man li may woo yaaram di ma <laughs> na ma ñaanlu naa fu ne waa ana lu tax nit ñi nañ def li leen war ta bañ a yàkkamte jërëjëf yaaram bismillah waaw secret jaaro bi nag dafa xaw a yaatu. dama ne réew mi nañ tekki jaaro yu te déglu ma réew mi naqari gi li muy naqari naqari maa ngi lay waatal ci yàlla ñiy def jaaro ci seen loxo te xamuñu lii mooy jaaro lan ci la bokk. Hmm, kon takk jaaro xam ne xamul sëñ bi am na ñoo xam ne keroog bañ takkee jaaro booba lañ ñàkk lépp. seeni mbir di wàcc seeni soxna di dem seeni place yeen yoroon muy dox doxatul ñu mel ni kuy deltu ginnaaw ni mu amee ci jaaro ni la amee ci ñaan am na ñoo xam ne euh, keroog bañ toogee ci diw na ko ñaanal ma loolu yëpp boo gisee ma koy leeral kenn ku ne da ngaa amub sëriñ te da nga faa war a dem mu ñaanal la buñ ko defoon rek euh, maanaam euh, lépp baax waaye dem ci Masamba dem te yow sax yow xamoo yow mii ñaanu yow la kan wala nit ñi kon léegi dañoo bëggatul dëgg ba tax na jaaro yi dañ koy liggéey ci wàllum téeñum ngeer yaa ngi koy dégg am na loo xam ne ci lañ koy def am na loo xam ne xaatim la yoo xam ne boo ko daggee ba dugal ko am na noo koy def ba takkal ko nit ci jaaro bu fekkee wàllum alal képp moo tax suñ boroom da ko koy jox du ñàkk mukk ci àdduna ko ah mais doo bokk ci loolu moo am sëñ bi xam-xam dafa am te mooy dëgg bu fekkee koom képp moo tax ngay jóg di daw incha allahu rabbi di nga ko am ci nu mu doyee waaye bu àndut a kaaraange mën ngaa gàtt fan dañ koy liggéey jaaro boobu jaaro yi ñetti façon la bii kaaraange la bii bayra la bii fatmu la tijjeeku bu fekkee xool nañ say at nga attan ko mën nañ la koo liggéeyal ndax man jaaro ku ma koy jox dama koy seet ba pare jaaro jaaro jaaro jaaro bari na waaye bokk na ci li tardir réew mi nañ ci def ndànk yàlla xam ne ne de euh, dem nañ ci bërëb gëstu ji loo xam ne ba gis ci loo xam ne amuñu yàqi na lu bëri tardé na waaye jaaro yee tax mu tardé takk jaaro rek di nàng-nàng xamoo foo jëm ak moom nañ ci tey jërëjëf yaaram. Euh, am na solo euh, mhm. bu baax a baax mais euh, jamono ji ñu nekk nit day def day nekk ci dara. Mhm. te yaakaar naa ku nekk ci dara bëgg nga ñu dégg la ci bëgg ci tur bëgg mhm. ci am bayre. waaw yow nga yëngu ci wàllu bayre boobu lan nga ñu mën a wax ci bayre. Serigne Touba sax daf ko waxoon da ne bayre baax na am mag ñi ñoo xam ne dañ ne bayre na bayree bu sa bayreewee rek nga am bayre <laughs> ah, kay gis nga bayre lu am solo la ñu bari nga baal ma ñu ngi toog. sonnuñu nit di sonn di dem ñu xëy benn bis rek génn rek seen mbir baax bayre da koy def bunt boo fëgg mu dëgër te waroon a yomb nga baal ma ak kumte nag day ànd ak bayre ak tijjeeku day ànd ak kumte xaw ma dégg olof yi may wax xaw ma bu fekkee ne am nga bayre da ngay tijjeeku bu fekkee ne da ngaa tëju ñàkk bayre bunt boo laal day jafe moo tax mag ñi di ko jàllawlee ñoom seeni wax dañ koy dëppu ba tax na bu fekkee ne bayre moom bayre rekk nga baal ma <laughs> yow yaay dàq waaye nag man samay liggéey dafa xaw a doy waar ndax damay bari di ko wax ma ne man du liggéeyal gone ndax sama gàllaaj boo ko laalee man ngaa beew ku yàlla bind nag laa la wax li ma la wax du ko dindi bu fekkee ne wàllum ubbeeku ak wàllum bayre ak wàllum nga baal ma kaaraange giñ naan kaaraange yor naa cëwri boo xam ne dañ koy liggéey ci ay puso bu ma la ko takkalee ku la laal day faatu waaw loolu mooy lu te jamono nañ ñagu surtout ndaw ñi nga xam ne ñu ngi teel a sotti nañ protesté wu nga baal ma sëy yi mi ngi yëngatu defoon naa fi sorti ma ne la ay jinne dañoo dugg ci dëkk bi ay rab rabi yàqkat dëgg la nag buñ ne jinne am na ñoo xam ne sax euh, nga baal ma ñu ngi naan amul te ñoom buñ tëddee sax seeni nelaw du baax ndax ña ngay jeneer wala ñuy gént wala la ñuy gént sax mënuñu koo jàpp ñoom ñoo la gën a xam ne am na lu ñu jëkkal loolu àndandoo la rab nag jinne yi nga xam ne spécial dangaa ñëw ci borom dëkk rawat na dëkkum ndox nga nekk fa boo xëyee am na loo war a def eur boo tëddee yow yaa dul gis waaye mën naa jaar sa buntu kër wala mu jaar sa ginnaaw kooku nag bu fekkee yaa ngi ci dëkkam bëgg di fa am dara muy mos ak mucc yow yaay xam ni ngay def bay def saraxam ak lu mu ndaw ndaw kon boo ko defee suñu borom dana la muccal sëy yi léegi da gis sëy bu takk ñaari weer tas nekk ak kii ngir bëgg koo takk foo dem wax dara jigéen ñi nekk ci kër yi mënuñoo sëy yi ah góor ñi seen xol di tàng rek luñ am mu dem ngelaw hawa iyu lan moo tax loolu nga ne jafe amul te ñi dañ daan toog bu njëkk nawet bi ñetti weer la ñu bay buñ bayee dañuy génn piliyaan bi toog ci pencu mi mosuñoo lebi kenn te kër gi dépasse du fi manqué rab moo ëpp lu koy def ah, man rab nu la man di jàppe boo ñëwee dama koy dindi nga gis waaw waaw kuñ man di yeew fii chaque jour ñu yeew nit dugal ko fi bu génnee yé ah, moo lay jiitu ci oto ba loolu mooy lu wér nekkaat ko complète te bu fekkee ne def na ko noonu ñun dañ la koy ñagal ba noppi tijjil la ko ci wàllum àdduna ndax rab bu la defee noonu ba bàyyi la mën ngaa wér waaye mën na laa tëj doo amalete kenn njariñ xaw naa xaw naa xaw naa xaw naa bari ay ruq yoo xam ne nga baal ma dafa xaw a dafa xaw a naqaree naqaree expliqué mais rab daal lu am la lu ama am la ku koy weddi ku ne nag da cee amul bis sëriñ bi yow gëmmal rek nga natt sa bopp nekkal ci bërëb rek nit rek nga baal ma man naa mën naa mën naa jeneer loo xam ne day sikki sàkk ne bu fekkee ne nag boroomi rab la mën naa xam ne carrément moom kër gëm dëkk sax am na lu muy dajal saa su ne wala am na lu muy gis waaye bu fekkee ne tëm nga bëgg kaa weddi te mag ñi daan tuurali rab ngay xëy def naa nga xam ñu def nii ah sëriñ bi nañ waxante dëgg dëkk bi dafa bari ay yàqkat yu fi dugg te nañ def saraxu kër yi kenn ku ne xam sa sarax jàmm na ñooy lii daal mooy message bi ndax am Uh-huh. yow am nga man de nit mësta jàkkaarloog man wala mu dégganteeg man na ma kayit laa soxla ñu génn weer wa kayit këyit yi sottiwul hmm? mësul am ci àdduna barke Serigne Saliou képp ku ci jëflanteeg man moo xam examen yii ño samay élèves yi nga xam ne ñoo ñëwoon ci man ñëpp suñ borom xam nga lu waay man du metti xam nga li nga mënul moo tax ngay ngay nga <laughs> léeg-léeg sax nit ñi laaj ma na ma yow lii ki mën leen bu fekkee ñaan dong xam nga li ngay def nit mu gis bokkut ak ay ginnaaw suba tay kii man boo yaaram ku la tëj ci àdduna boo amoon loo doon seet nga ne ma diw wan na ma ginnaaw bu ma waxee la ma wax bu ma ko tiflee bu may fas mu lay fekk si léegi-léegi barki Serigne saaliw li nga man du metti booy wax ak nit ñu naan yow li ngay wax li tax doo ci ànd ak pression Sénégal yëpp jóg yow Serigne si buñ jaaree fee nga jaar fëre ma ne leen lu waay man du metti te gis nga nit ki li ngay wax gëm ko ba noppi xam ko di ci def ay résultat nga xam ne umpul kenn daana ko loo waxaat wala foo demaat rek da ngaa bëgg a dimbale jaam ñi waaye du sax ay yu bari yu ko nit ñi teg jamono nag moo toll foo xam ne fokk ñu génn wax ak jaam ñi ndax boo yoree njariñ te ñun saa nafxin bi laa dara ren ñun njariñ yoo xam ne àndut ak lor moom lañ sëñ Tuubaa waxam ja mën naa firee ko fu ne njariñ yoo xam ne nag àndut ak lor boo ko amee wax dëgg yàlla da ngay génn nga jariñ te xam-xam na xamle waaye boo ko toogee sëñ bi toogaale ko waaye nag yaa ngi seetaan naan du waaja du waaja waaja mën na laa romb buxuma nag ngir man sëriñ bu nekk dama ne ma xam nga ak ndof mënul passé nga toog ne may ñaanal ñëpp adduna kenn ku nekk da nga am sa sëriñ misaal bi rek mooy ñi dañuy nekk tijaan ñi nekki ñaseen ñi nekki nangam ñi nekki murit ah loolu boo gisee yàlla suñ borom euh, moom sax nga baal ma ñëpp gëmuñu ko ab sëriñ bu toogoon ci Sénégal nga xam ne dañ koy gis muy dem ak ñëw ci asamaan si du tax ñëpp gëm ko waaye yàlla nag ci biir jaam ñooñu ci la tàggatee kenn ku ne ak kem la war a booleel moo tax sëriñ si rikk ku ci seetal nit ba xam ne mënoo koo ñaanal ne ko mënuma laa ñaanal demal nga xooli feneen boo seetalee nit ba xam ne kii seeni mbir déggowul nee ko bafi nga dem ci bërëb sàngam wala nga toog te déglu ma boo seetee sa xam-xam ba mu gis na la diw sàngam man léeg-léeg ay kilifa yabal fi nit am na ñu koy def ma ne léeg-léeg ma seetal man dama koy def man léeg léeg-léeg ma seetal nit man sama jëm bopp xam ne mënuma koo ñaanal ma ne ko demal ci bërëb sàngam bu fa demee aajoom faju barki démb bu nit ñëw na fi ma xool ko xool ko yabal ko ne ko demal xàbbaan ba mu fa demee dellu mbuur dana ma yaaram ma ne ko naa mu ne ma maa ngi nii yor sama oto duy ci ma ciy duy fa laa jëm ma ne ko bu fekkoon àdduna ñëpp def nañ ñooñu rek jàmm ne ñooy lu waaye mënul neel mënuma loo xamul neel xaw waaye gars yi joxe nañ seen xaalis ba sonn te ku xamoon ndax dee gi dafa jege bàmmeel barke Serigne Saliou Mbacke loo fa jëful doo ko fa fekk te dërëm bu la lewul nga lekk ko boo dee di ko diggaale ak suñu borom nit ñi nag dañoo ragalatul yàlla bu fekkee alali àdduna képp alal yomb na alal yomb na mais xam nga lu jafe mooy tuyaa ba joo mën a liggéey ba ëllëg bu nee la pëkk-pëkk nga ne ah nangam nañ fexe ba benn benn yi ñu bañ a ëpp fukk-fukk yi <laughs> jërëjëf yaaram

kooku bu fekkee ne da ngaa am nga baal ma euh, fukki at ak nangam tàmbali ko boo amee 30 ans rek dana feeñ ndax da ngaa teel a fo mais nag teyoo ko dañ la koo defloo boo fowee sa bopp ba noppi boo noppee rëccu xam ne carrément lii du yow dañ la koo defloo rab da koy def ñi nga xam ne dañ koy def ñaare bu ñuy bu ñuy bu ñuy jëm mag di tële duñ man ci wàllum jigéen dara man tële bu fekkee ne judduwaale woo ko boo ñëwee fi nga toog laa la koy fajal loolu yomb na loolu xale yi dox yooyu <laughs> yooyu yomb na yooyu moom yomb na yomb na waaw loolu da ñëw bu fekkee ne jógul ci saase sedd yàlla nga dem sa yoon loolu du lu ñuy waxante ay ay kii loolu dañ la koy defal nga gis waaw loolu ab liggéey la boo xam ne dañ la koy dindil dañ la koy dindil ba noppi delloo la sa ngóora waaye nag day fekk judduwaale woo ko waaye boo ko judduwaale man duma ko la kenn duma ko laal déedéet mukk ci àdduna waxtaan wi li ñu waroon a li ñu waroon a yaatal dëgg la xëy na xaju fii ndax point yu baree baree bari wàllum ñaan yàlla daal wàllum dugg xalwatu ak wàllum jaaru yooyu wàllum tijjee ko kaaraange ak wàllum jigéen ju ju ju ju sëy ba noppi mënta am doom ak wàllum jigéen joo xam ne dafa bëgg a sëy bari na daal lu ñuy liggéey li nga xam ne daal moom lañ dul liggéey nga baal mooy wàllum bët moom daal duñ ko duñ ko duñ ci liggéey waaw wàllum waa waaw bët yu lëndam bët moom dañ koo tegandi ba ci kanam waaw dañ koo tegandi waaye wàllum yàq lu mel ni tànk yu bañ ak yooyu boo ñëwee dañ lay doxloo moom it ci si waa yooyu daal am na fi te ñu ngi ciy dimbale jaam ñi wax dëgg yàlla am na solo mhm. uh, yàllaahu am amruhu isa arada seen an yaqulu lahu kun fayakoon fa subhaana lasi bi yadihi malakotu kulli seen wa ilayhi turjaxoona tàggoo bi mooy tàggoo bu dul tàggatoo di leen sant di leen gërëm di ñaanal sit bi yàlla na ko suñ boroom tee te sàmm leen te aar leen wax dëgg yàlla ay nit ñu ñu ñu ñu ñu sawar ngeen te te te bëgg li ngeen di def yàlla na leen yàlla sàmm te aar leen te làq leen fu yàq yegul ak seen kilifa googu seen jëwriñ ji ñu ngi nuyu sëñ Alpha Diagne mu sëriñ Saliou mii nekkoon fii ñu doon euh, waxtaane di euh, mbokk di xarit di lépp ci kër gi moo toog nii di nit ku baax waaw ba tax na daal euh, Serigne Cheikh Saliou yàlla na fi yàgg te wér képp kuy sol sa dàll daal lislaam tax laa jóg lépp loo ciy dox yàlla na ko yàlla saafara ci nu gën a gaawee nga baal ma message bi danaa ko jàllale suñ mbokk Afrique du Sud ña fa nekk na leen ñëpp ñaanal euh, yàlla suñ borom ay yooyu mu musal leen ci te muccal leen barkeb Sëñ Tuubaa jërëjëf yaram waa numéro bi du jombul danañ ko bind ci suuf ah incha allah mooy 202 cent 08 incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf mhm. euh, beneen yoon euh,